ñaamar ca kanam ñaamar ca kanam di kuréel gu nga xamante ne nii mbooleem taalibéy sëriñ ibrahima mbàkke moom sëriñ mbàkke madina ñoo ko taxawal ngir jëmale nag dëkk bu sell bii di ñaamar ca kanam loolo waral mbooleem fu taalibe nekk moo xam nga nekk ci réew mi ba biti réew ñu ngi sàkku ngeen yónnee seen ay addiya ci suñu ay compte orange money wala ci suñu compte crédit mutuel bu fekkee compte orange money bi la mën ngeen a def 77 405 55 12 77 405 55 12 bu fekkee suñu compte crédit mutuel la mën ngeen a def 14 08 280 14 08 280 ñaamar ca kanam di kuréel gu nga xamante ni nii mboolem taalibéy Serigne Ibrahima Mbacke borom xombol ak ñaamar yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñoo leen ñi soññ ba tey ci liggéeyu kër Serigne Ibrahima Mbacke gi nga xamante ni nii moo nekk ci Touba Daarul Xuddoos liggéey boobu nag tàmbali nañ ko te ñu ngi ciy soññ fépp fu nga xam xamante ni taalibe nga fa rek ñu ngi lay soññu ngir ngeen joxe seen ay addiya ci liggéey bi nga xam ne ni tàmbali nañ ko ñaamar ca kanam ànd ak yéen ngir nag lépp lu nga xamante ni liggéey la bu Serigne Ibrahima Mbacke woote rek kuréel gii di ñaamar ca kanam fas yéene ji taxaw taxawaay bu am solo ñaamar ca kanam ànd ak yéen ci liggéeyub Serigne Ibrahima Mbacke borom xombol ak ñaamar yàlla na fi yàgg lool te ànd akub wér.